looy looy kii ah, bu ci am looy rus bu ci am looy looy kii adduna noonu la noonu la tëddee xool xool xoolal laaj xoolal laaj koor gi ci alaaji ah mo alaaji alaaji ah alaaji nag ah ah alaaji nag alaaji nag alaaji li lu mu doon nag alaaji ok moom kay sant yàlla rek moom koy alaaji nan koy gën a sant rek taarkal fara toogal alaaji loo def fay sant yàlla nee na alhamdulilah naka naka naka naka xale yi ah naka naka kër gi kër gi day moom daanaka nag. Ah, ah, ah, waaw sama kër ga fi ne nii ci garab yi laay windeelu dugg fële mm, génn fële. Mm, mm, waaw moom waaye alaaji fara mii. moomu moomu indi tey. ndax it fan yii yëpp. jàppal yeeg bàyyi yi mu fi amoon ak ak mu numbe bi di ko testé ay ndomba ca mbaaram mais. mu métti woon loolu ba mu ñëw fi àkk waaye. loolu métti ko lool ndax diggante bi dara xëju fi ba mu jàppante feeg mu numee waaye bëkki démb xale dañ koo àkk si waat kër ga xale yi àkk si ko kër ga dégg nga maam xeex moom xeex bu métti boo xamante ni man mii keroog dóor na ma ci ban sama sama faar wi ba sama faar wi xaw a teggeeku te nag diggante ñaari kër yi am na loo xamante ni xëju fi li nga mën ci xale yi nag noonu naa ne man mii euh, droit boobu laa am ci xale yi mooy duma mm, mm, mm. faraa ngi nii nag ay fan a ngi nii xëyut otage man doguma la yàlla bu la dee dog ah. Samb ñu ngi lay jéggalu foofu laa njëkkee waxee samay kàddu maa ngi lay jéggalu bu bu wér ndax keroog ni ma def sa kër gi fii jëf ju ñaaw la ndax sa duma lu ma ci man mënti xool sax ma xool sa diggante ak pataas mm. waaw waaye nag bëgg naa nga wax waxal ma ci xale yi mm. ndax ñu may wax jëf ju ñaaw mm. te am na loo xamante ni booy dañ koy dañ koy salant mm-hmm. man mënatuma am jàmm booy fu ma tourné xóot yaa ma gën a xam xóot te man duñ doon yem ci xóot gi sax mais yoonu buun bi ñu jël di ko ci boole xam nga te dama di mag te na yoo xamante ni ah, du du nekkul lu jaadu lii koy lan la ah, fan dafa xëyut alaaj waaw lu tax xëyut daa dem ba ca kaw taliba fekk fa booy jàng ba wàcc yor seen saak waaw ndekete ñankoo mënu mi mii wax kàddu yi génn ndekete dañoo génn tas ko ci dëkk bi ñoo mobiliser booy di ko woowee xóot bun ah man na dama cay yegg keroog dem na ba jël ndoom ba aw ba tàmbali boo commencé fi muy ëwee ba tooyal dar ma booyee àq si ko fa wàccati école te école ba ak mbaar maa dende booyee toog bi ko woole woole xoot ma ne mu daw ñëw di jooy ci kër ga jooy yi métti ma ne ko lan la mu ne ma xale yaa ko mu ne muy dàqante xale ma ne ko baal dàqante bi nag dana da ngaa woo sàmm man ci kattanu yàlla ak mbaaxam doo ma ci mën a dimbali ñaankoog ma numbe nii ñu mel man la gën a métti ndax ku sañoon boo jureel sa doom bu fi gënul kenn du ko gën gannaaw yàlla ma leen indil ñu mel nii ñu mel mu def leen nii mu leen def dama ko koy sant rek mm. ndax mënoon na maa joxit ko am alal <laughs> te duma may jàmm. la. gannaaw ñii la ma la jox dama koy sant. Mm. am na ñu mës a am doom. Mm. tooñ gi ñuy wër di tooñit neexuma. ndax sax jur ni dugg sama biir kër gi kalaame ma ñànku wala kalaame ma nu ma nu ma te mënu ma leen a téet te mënu ma leen a rayit jooytu nga li ci des nag mooy xóot loolu ñu lay woowee foofa yàllaa ko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 109 75. Notre site internet www.cefas-du6sénégal.com. binde noonu mu xóot. waaw man ndax bu xóotut. yafay génn du fa mën a génn dem ci duus bi. waaw. foofu moom na ko jekk daa xóot. waaw sàmm fii fii fii. fii ñëpp a xóot la sax. waaw waaw moo tax ma ne la yàlla ko bindee noonu mu xóot. waaw mais mais ku nekk bëggul ngay tudd si xóot. xóota foofu. waaw loolu am na loo ciy bañ. Ah. loo koy féetewoo. Ah, yow rek ko ko xóot le. waaw ah. duñ tuddee fara wuure. kan kon yi ne xóot bun nga ne leen seen bàyyi xóot bun. waaw. ah alaaji leen seen bunu bàyyi. alaaji déedéet alaaji. alaaji déedéet alaaji. ku ko xóotlewul. alaaji déedéet alaaji. dama wax loolu alaaji. alaaji déedéet ah waaye dama lay wax rek. dama la jox loo fi nekk di ko bañ. tey nga dee. bu leen wan ni dama liggéey sa liggéey toog. waaw waaw dégg seen bàyyi nag yéen a ma gën a xóotle. seen bàyyi nag yéen a ma gën ah, waaw waaw waaw waaw. Ah, te ngay jotee waay. waaw waaw waaw ko defee sama kanam. wan leen tamit seen bosu baay. waaw léegi day ko wax ñeneen ñi. yaa ma jox fa waaw yaa ma jox ma wax ko buñ la ko waxee. wax leen ko ñoom tamit ñooñu demal liggéey. amal ful la que booy yi ñuy boole maanaam dañuy rassemblement uude uude métier gënu koo noble. waaw. Mhm. laay walaay dëgg fii ku fii buur. Hmm. wala nga falu. Ah. wala gannaaw yàlla nga am kaaraange. Hmm. toog nga ci uude. uu nga woo ko sa kër wala nga dem place am. <laughs> xam ci uude la njëkke ma la waxoon. uude ñoo daan dar buur yi. uude dafa am xam dégg nga wax na ma moo tax du métier boo xam ne sax ku jóg def ko moom tëgg a yam wax na ma ko de lu bëri loo xam ne ay noobul ngeen lu mag waaw uude noobul la alaaji moom mii nee na ma am na ndomba loo xamante ni bu noppi woon tëj gémmiñ gii am lu mu ci def rek xale seen biir seen daw am na lu waa koñ bi di wax moo tax moom ñu ko fi jéggi di dem fële ca ka nekk na la ca are ba moom mi di fa ëwlu moom mii saay-saay la daa jàng alxuraan boo ko indilee sa nomba. waaw da koy liir. ah, ah la ko. xam nga rumeur yooyu ah. jox la takk téere yi. moom mii saay-saay la bàyyi bàyyi téere jàmbur yi ngay remplacer. way wi egsi na way wi egsi na fara nga ne ku ma dina àkk si àllaaji <laughs> bu la jéppee. waaw boo ko gàllaaj gi ku ko yow du wax day jékki-jékki di way. moom mi waaw. alaaji ak seneen ma ñeenti yoon ci moom mi. ci la fi mu mel ni nga waaw kon nag baax na ñu def noonu rek. alaaji waaw dégg rek li ma la wax xam naa la dama lay jéggalu. dama lay man man amul problème dama lay jéggal amul problème man nag yow nitu kese nga ah, dafa nekk la mën lu me moom dinaa wax ak ñoom ah, non man naa ko gérer ci kattanu du ma yëgg sama kër la fas du ma ko fasee ñangi koog mën dina ñëw taxaw sama këram jéggal ma ndax dootuñu saw dootuñu dem duus waaw waaw waaye nan xëyal xamal ne keneen xam na ko ñangi koog mën nu me moom yàllaa leen aar man kay rassemblement tamit bul bul bul menacé bul menacé joomi jàmm moom alaaj ah alaaj eh bu ma dégg ci loolu yow eh bu ko wax a demal demal joxal sa baay waxal sa baay walaay waxal boo wax lan bul waxati xóot di ci teg yoonu buun bii nga ciy teg la a métti bu ci waxati bàyyi loolu bàyyi loolu joxal sa baay xamal ko lan muy lan ka dañoo sangoo histoire moo xam loo xam bëgguma ko loo ma wax bal ma waxal loo ma wax bal ma waxal loo ma wax bopp yeboy la ko wax ma ne ko ma ne ko xóot bul yi dootuma déggati bopp yabay. waaw waaw dootoo déggati xool. li ngay wax. waaw léegi sa mën nga xootul léegi jeex na. jeex na waaw jeex na joxante leen loxo xool loxo joxante leen loxo. loxo joxante moo dëgg nag waaye sa xool na lool. cocktail une explosion de saveurs dans une même et bouteille fruits ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sell te naturel buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bi sàppi nag oh, oh. dina yokk seen katan boole si vitamine rek la ñi bëgg soo naturel nag vito soo exsident pour fête bu mënti doon lool si yaxu gune ak mag nag nekk si emballage yu civilisé te wóor ak jus vito da ngeen am choix te ñu defaree ko fii ci Sénégal si anam yu naturel te sell disponible partout Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité Keur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 le jus fait maison